asalaamaaleykum le jeune tey jii maa ngi lay indil li nga xam ne mooy challenge xarala maanaam tey jii naka lañu mën a nàmme suñu xel jëfandikoo ko ci loo xam ne lii mën nañu jariñ pour ñu produire de la valeur tey dama leen di indil li nga xam ne siiw na ci internet bi ci xale bii nga xam ne moom la ñuy wax Ablaye Sakho muy benn étudiant bu nga xam ne dafa ubbi benn projet bu ñuy wax setal ma étudiant bi mu ngi nekk université Cheikh Anta Diop gannaaw jàng bi nga xam ne moom lay jàng pour mu xool tey jii lakk la mën a yëngu loo xam ne mën na yéwénal dundinam foofu si la jëlee benn concept bu simple boo xam ne dafay dugg ci biir pavillon yi xool étudiants yi naataangoom yi ñi nga xam ne dañu soxla tey pour ñu raxasal leen seeni dàll donc concept bi du dara lu dul dem uti ay client ñu am ay dàll yu tilim mu raxas leen mu fayeku ci loolu mooy concept bi gis ngeen xarala dafa yéeme parce que bu dee ci liggéey ci ñaari fànn la aju ndax àddina ñaari liggéey moo am liggéey boo xam ne da ngay jaay nit dara maanaam muy produit boo xam ne danga ko defar di ko jaay nit wala boog muy ngay defaral nit dara maanaam nga am service boo xam ne da nga koy defaral nit niki dentiste bi tey di ni muy wekkee bëñ mbaa maçon bi mu ñëw tabaxal la sa kër noonu la ki nga xam ne dafay defar dàll ñëw defaral la dàll jaay la ko noonu la keneen amee tey jii oto pour ñëw jaay la ko mbir moom mboo koy analyser ci gàttal damay jël ñetti point critique yoo xam ne ñoo ci gën a fës bu ko defee ñu jàngat ko parce que loolu moo ci am solo jàngat bu njëkk bi comme li ma leen wax sànq mooy projet bu simple maanaam concept bu simple gis nga xarala bi gën a taqe bi gën a ñaw mooy nga def lu simple lu simple mooy xale bi li mu def parce que service la boo xam ne bariwul tey jii mu nekk ci benn environnement mu jàngat environnement boobu xool ne lii de mooy li nga xam ne mooy jàppandi ndax du ma génn sama clientèle mu ngi sama wet service bi nga xam ne moom laa leen di proposer muy service boo xam ne dañ ko soxla te soxla bi duma ci dem tuubaa duma dem Tivaouane du ma dem Bambey fii laa koy defee du loo xam ne lii tey jii laaj na benn xereñte boo xam ne tey jii damay defi formation laaj na loo xam ne lii damay dem uti financement mbaa laaj na loo xam ne lii damay dem jàngi entrepreneuriat mbaa loolu déedéet jàngat bi fii la xewee seet naa ko seetantal ko ma ne nii laa koy doxale loolu mooy simplicité mooy projet bu xereñ mooy projet boo xam ne dafa tegu ci cadre bi nga xam ne loolu la ne parce que projet dafa war a wuyu environnement bi nga xam ne moom la ne projet warul compliqué ci benn niveau bu nga xam ne dafay laaj xarañte boo xam ne dangay ngay dem oowi ñeneen ba da ngay jëm jëflante ak ñeneen man na nekk après mais yow mi koy démarrer ci bi ngay dooree mu doon loo xam ne lu simple loo xam ne boo ko décidé dimanche altine mën nga jóg doxal ko bàyyi leen ci xel. ci ni ngeen di mën conceptualiser sen projet diko ko muy doon lo xam liñ liñ da fay dëppoo ak temps c'est extrêmement important benen cas critique bi nga xam mom lañ ci nemmeeku ku tam am solo lol moy projet bi daf koy démarrer te yoru xaalis projet la bo xam du laaj financement projet la bo xam ne tey daf koy commencer léegi doing now lol dafa am lo xam dafa am solo trop pour ñu war ko intégrer du ma dañ di ko wax moy ut leen projet yo xam man ngeen ko dor te doo leen laaj kenn doo leen soxlaal kenn ngeen doore ko ci seen xam-xam ci seen xereñte ngeen xool projet boo xam ne dina wuyu situation bi nga xam ne moom ngeen toll mënoo nga toog yoroo dara nga war a lijjanti sa xel nga war ko namm indi xarala boo xam ne tey jii dina mën a tontu benn bëgg-bëgg boo xam ne sa communauté am na ko te bëgg-bëgg boobu du laaj dara lu dul nga jóg ñàq defar ko loolu mooy xerañte donc dafa am solo pour que toujours ngeen di intégrer si seen projet ay RIC xool leen projet yoo xam ne moom ngeen attan parce que gars yi li am solo du question démarrer lu bari li am solo mooy nga démarrer rek benn pa voyage bu mag benn pa ngay commencer Lao-tse muy borom xam-xam chinois boobu moo ko doon wax tey boo doon dem fii ba koro jéego bi ngay jëkk a jéego boobu mooy li ci am solo parce que boo xësee ba jéego tegaat beneen tegaat beneen yaa ngi tegu ci yoon boo xam ne boo bàyyiwul di nga yegg fa nga jëm loolu moo am solo il faut ñuy ànd ci loo xam ne noonu la àddina tëddee dafa simple compliqué wul mbir yi kenn du ko yenu da nga koy teg xool naka nga koy lijjantee mais boo ko yenoo dafay metti dafay compliquer beneen cas critique bi tam mu am solo dafay jàppaloo ak ñaar yi mu la mujj wax dafay jàppaloo ak ñaar yi nga xam ne moom laa la jëkk a wax mooy gis nga projet il faut mu nosoo noso seulement manam mu am euh duggante bo xamné da fay indi cohérence manam projet bi warul doon lo xamné si ni nga koy defee dafay doon lo xamné da fay lay ci lenn ci li nga ci sa famille ba si sa dëkkin ba si sa yëngatu projet dafa doon lo xamné daf la war a ci li nga projet warul doon lo xamné daf bousculer projet warul doon lo xamné li da nga ci di ak sa famille projet warul doon loo xam ne lii dafay indi gàllankoor si sa dëkkin ak sa famille parce que loolu dafa am solo parce que projet bi ki koy porté nit la nit kooku dafa am foo xam ne fa la war a sës fa la war a sukkandiku pour doolee mën a taxaw bu ko defee projet boobu mu man ko porté kooku nag dafa laaj bopp boo xam ne dafa posé dafa laaj bopp boo xam ne dafa tey dafa dal te loolu li la koy may li la wër nga am ci jàngal boo xam ne lépp lu nga xam ne gàllankoor la nga mën ko sempi soo gisee le jeune Sakho mooy mu ngi nekk université de Dakar foofu lay jànge donc mu xool ci biir njàng mi naka la ko mën a booleeg loo xam ne lii du war a dem ba Thiès pour war ko def du war a dellu ba seen dëkk pour war ko def mais def loo xam ne dafa nekk ci environnement immédiat loo xam ne dafa nosoo ak situation bi mu nekk parce que tey jii li tax mu mën ci jële dara mooy dafa doon loo xam ne du indi ay surcoût parce que tey bu fekkoon ne dafa xalaat loo xam ne cees lañ koy defaree mbaa Bambey mu war a def ay kuuram université Cheikh Anta Diop fi jóge di dem Bambey mbaa di dem la noonu dafay indi gàllankoor boo xam ne gàllankoor ci temps bi nga xam ne moom la war a def pour def loolu mbaa mu indi gàllankoor ci li nga xam ne dafay laaj weccit boo xam ne daf ko war a teg pour mën a def loolu mais lii daf ko def ci cadre boo xam ne amul hmm. ben galancor bo xamné man mën ko indil parce que fi jangé fofu la tégué business bi business bobu di meñ ndank ndank kon buñu def projet nañ ko mengalé ak suñu dindine nañ ko mengalé ak suñu situation financière nañ ko mengalé ak suñu situation familiale nañ ko mengalé ak suñu situation professionnelle pour que tay jii bo infirmière sa xel nek si ne da nga wara def commerce teg ko ci anam boo xam ne si liggéey bi nga xam ne tey jii mooy si bu mu doon loo xam ne lii loolu daf koy gàllankoor parce que bu boobaa sa liggéey dina am gàllankoor mbaa sa projet dina am gàllankoor te lépp dafa war a doon loo xam ne lu digg doomu dafa war a doon loo xam ne dafa switché ànd tegu ci temps c'est extrêmement important gars yi maa ngi leen di ziar di leen gën di ñaax jàpp leen yàlla dina ñëw ak ndimbalam ziar naa leen.